noonu la ñuy ànd ak yéen ci journée boo xamante ni Fallou Ndiaye production ñu lay gërëm bu baax a baax di la ñaanal sunu borom defal la jàmm ci bis bi nga xamee tëgg nga ko diggante Diop de ak ki nga xam ne mooy cité bu Ngor loolu doy na duñ ci commentaire mais mbokk yi bis na boo xamante ni bis mag la bis la boo xamante ni ay yeneen champion war nañ ci daje waaye tey dañoo ñëw fii ci quartier Abdou Ndiaye Zos moo ñu fi indi waaye dañ leen di bàyyi ngeen dund ambiance tuuti ak Augustin Ka sama njaago or bi sama xarit sama lépp moom laa war a àndal tey mu ñu ànd dugg si ambiance bi waaye seex a ngi fi ak ñeneen ak ñeneen ñoo ngi ci biir mais mbokk yi noonu lay demee ak Leral TV Leral point net gis nga jaan ji ki ko yor. nu mu mel ak la mu ak kagul beeg loolu yëpp loolu yëpp mbokk yi taaru làmb la mbokk yi loolu yëpp ci liy làmb la loolu yëpp dafa nekk loo xamante ni mais lu garaaw a ngi nii Augustin lu garaaw a ngi nii ndeysaan làmb war na Serigne Touba Balla yow jàmm si yow rek ñun yow rek la ñuy topp ñun bu ñu déggee jàmm gan yàlla ak la yow bu ragal dara ñooy sa ginnaaw booy bi day dem jëli ji ko bu ragal dara yow comme li doon wax. ji da ngay jëli rek. nañu ko waxtaanee rek ah, keroog la Bamba dénk Cerno Ruuya. su dem mun sàmbal ma tool ya. barki Alaaji Fall. nañu ko waxtaanee waay. bu ragal dara. waay bu ma jooyloo waay. waaw yow yaay waay yàlla. waay bu ma jooyloo waay. yow rek la ñuy topp galas. Laurent. dugg ngeen arène nationale. waaw yi fa xew yëpp. gis nga ko mais loolu lamb la. lamb la mais après lamb ji lu xew. waaw gis nga après lamb ji naaj. mais làmb la woon waaw bëre nañ ko yàlla waaw gis nga kenn du la wax mais ñi ngi waat suñu yoon. mais da Pokola ñëpp ne woon dañ koy rey ngeen gis bëri bu jaar yoon bi ngeen ci bëri. waaw bi ngeen mais bis bi lan moo tax bis bi yéen woo leen ko. loolu amateur yi la jaaxaloon mais ñun jaaxaluñ mais loolu passé nañ foofu man maa ngi waaj le mi ngi waaj la 30 quoi mais lépp làmb la. mais jël nga le nga jël xale boo xamee gis nga ni mu def mbay xaddaa nga jël xale boo xamee si ni sekk ndaanaan ñëpp ne dafa mën a xeex. ñëpp ne revanche sama mag mbay te lamb bu ma ñor la di si woo waa Samsam tëli jaara di si dëkk na ñëpp ñëw ma dem jël li ma moom man xale laa damaa soxla de saa waay. sekk ndaanaan nga jël damaa soxla. mais duuri ndaanaan ni dóor. bu dee dóor rek mooy may ndam barki allah gi fàllu duñ yàgg. waaw man man jàmbaar laa de damaa soxla de. jàmbaar nga sekk ndaanaan ndaanaan la de moo tax ñu ne ko sekk ndaanaan. man na bëre. Ah. te buy ñëw xam ne caatu ngéwél moo koy indi. sama xarit bi caatu ngéwél. nu mu nekkee sax. yow la maame ela la paabe ela ngéwél gi. mbayaar lañ de ñoo bokk di mbayaar. bay jiili. doo ngaaka. na ngaañ bi yëpp maa ngi biir yoof. waaw. ah. man yoof analyse. lis mi ngi gàlle. lis nekk na ñaari waa waaw non défense benn avance. ay rumeur la ni rek avance Ada Fass gaal. waaw mais bu duggee du génn. demee looloo ñu war li nga bëre keroog rek. kon xam nga lamb léegi lu mu laaj. waaw xam lamb. deuxième deuxième la. mbër su liggéeyee ba doole am fit. su doole ba fit. waaw liggéey moo ñu war waaw. xam nga ne champion. waaw loolu loolu lañ loolu moom lañ ñëpp seeral. mais boo liggéeyee sa champion feeñ mais boo liggéeyul sa champion du feeñ te da ngeen a war a liggéey. waaw loolu moo ñu war liggéey moo ñu war ndax suñu xoolee làmb tey amaana booy siy lekk amul lu ñu ëppale. waaw kon liggéey moo ñu war ñun dañoo war a toogaat xool suñu bopp xam ne liggéey moo ñuy fay ndax ñoo ëppee làmb làmb dañoo war a fay force waaw. mais noonu lay waaw El Hadj Mame Fall jàmm jàmm si yow kay eh, ana Baba Diakhal Baba Diakhal mi ngi fi ci lu mu si jàmm bu baax di waaj waaw man mi si jàmm bu baax mi ngi waaj waaw mi ngi pare lamb lamb lay pare lamb lay pare quoi kan ngeen jël instant jëlaguñu kenn amagu leen adversaire non non amaguñu adversaire non non jëlaguñ ko de. mais jëlaguñ ko mais ñi leen di xaar. waaw ñu ngi ñuy xaar moo tax ma ne Baba Jaxal mi ngi pare lamb pare wuñu bis lamb la ñuy pare xanaa déggoo lu ma la wax Baba Jaxal mi ngi pare lamb. Baba Jaxal li koy xaar dafa bari. xam nañ lool. xam nañ lool bu baax daw nag. ah. daf may daw. mais ngeen gisee. mais daf may na ko xam nañ ko mais lamb lay pare lamb lay pare parewul kenn nag. mais mi ngi pare lamb. waaw waaw waaye lamba gi nii taaru lamb ci taaru lamb boo gis kenn doon sant yàlla bu wér amoo combat lan la yow la wala adversaire yi la lan la du ci man bu baax maa ngi ci àll bi xaar adversaire mais boo ba léegi mënuma am adversaire lan moo tax xaw ma lan la lamb ji léegi lamb lamb bi lobi ko amul benn plan lool duñ la jox combat waaw. da nga jàpp ne boo mu loxo bu gudd dem ci kaw. noonu la demee parce que mënuñu nekk ci 18 combat benn defet tey loo wax Gambie Kaolack ñu tudd da nga doyal ci Kaolack doyal nga Kaolack doyal naa foofu doyal nga kaw ponkali ñuy ponkali da nga war a wàcc ci ponkali ponkali ñu nekk Dakar a ñooñu laa sol te mënuñ ma leen jox mooy ña mooy ponkali rek non mënu ma mënu ma lim mais ponkali fi nekk yow xam nga samay adversaire samay adversaire xam nga leen samay adversaire moom ñu ngi Dakar fees fi dell la moo wane sama bopp Dakaru jërëjëf amatuma la may war a Gàmbi Kaolack déedéet laa bëgg a wane sama Mbàkke nga am ndam barke sëñ Saalu Mbàkke bu ma la wooyee da ngay bu ma lay wooyee ngay daan waa mbër jonto booba dégg kunja jëf ñoo ngi leen di ziar bu baax a baax amaan mbégte ànd ak yéen ci bis yu mel nii waaye amaan mbégte ànd ak yéen si journée bi nga xamante ni moom la Fallou Ndiaye tëgg dox ci diggante Diop 2 ak ki nga xam se ni moom mooy Siteu bu Ngor waaye combat bi nga xam se ni moom moo waral coow li muy fils de Lirou da xale boo xam si ni ndaanaan la xale boo xam ne bërëkat la waaye mu ngi day xale boo xam ni Zos 2 da xale boo xam ne bu jugee jàmm gën si kàmbaaw gépp jug muy xale boo xam ne ës man bëre lool tubaarkàlla laf cat waaye yaa ngi bëre teme xarit bu am jom am fula am fayda mbokk yi di leen nuyu bu baax a baax di leen jox rendez-vous mbokk yi dimanche ak Fallou Ndiaye gars yi na si ñëpp ñëw ci bis bu rëy boobu Zos ñoo ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyonteeg mbokki internautes yi nga xam si ñoom ñoo ngi seetaan à travers partout dans le monde waaye tamit à travers Leral. nuyoo waaw dinaa bañ sante yàlla. julli si yonent bi di sant si ñaar waajur. waaw di ñaanal sama pap fu mu tëdd gënal ko fu mu jugee di ko ñaanal mboolem jullit waaw di ko ñaanal ñii ñii ñëpp maa leen di ñaanal fu ñu tëdd gënal leen fu ñu jugee di ko ñaanal àdduna waaw di bëggee waat waa jàmm gën bu baax a baax a baax bëggee waat waa carte Abdou Ndiaye Jembere koñu fantaa mbedd mu mag marché ngelaw bàyyi ma fenn gétt ga foora ma fenn guy ga maa ngi bëggee ñëpp jàmm gën bi yëpp jeg saaw bàyyiwuma fenn fépp fu nit nekk rek di bëggee Zoss maa ngi lay waaw maa ngi lay bu baax a baax di nuyu ñëpp di nuyu képp ku may àndal waaw lu nuyu ñëpp lu nuyu képp ku jàpp si combat bi tamit maa ngi nuyu ñëpp bàyyi ma kenn di nuyu ñëpp. non ñi mënoon a déglu woon ayca bàyyi ñu liggéey rek maa ngi nuyu jàmbaar yëpp bàyyi ma nit. waaw ku ma limul sa tur rek. waaw xel bee fatu ko waaw mais maa ngi nuyu ñëpp bàyyi ma kenn ñëpp maa ngi leen di nuyu. Zos yaa ngi nuyu ñëpp ñëpp a lay fay waaye Zos da nga jëm ci bis boo xamante ni tey ñu gis ne sa open press mbooloo mi jos mbooloo mi lii mooy xanaa da ngay tëj la Liss Ndiago defoon arène nationale moom nga bëgg a def. waaw mbooloo bi du dara rek mooy xale lu mu moom nga jox ko mag lu mu moom nga jox ko waaw jox ñëpp cër mag ak ndaw paa ak meer bàyyi ma kenn man ñëpp laa amal jàmm waaw di leen ñaan nag le 19 ñu ñëw jàpp si bu baax a baax a baax a baax mbooloo du dara yàlla rek moo koy maye waaw di ñaan yàlla mu gën a yokk waaw di nuyu mère Bigué bu baax sama yaay boobu ak. jiwaa gis nañ ci biir combat bi sa digganteeg ak Fils de Lirou gis nañ ci ci préparation combat bi nga yokk maas nga yokk maas ba mu jaaxal ñu bari waaye tamit nga indi leneen ba mu jaaxal ñu bari mais Zoss maas bi maas bi nga indi ci préparé ci combat bi sa digganteeg Fils de Lirou lan la. waaw maas bi du dara lu dul ñun làmb nekkul fii mooy suñ place si làmb quoi ñun dañoo war a doon champion si làmb waaw war a bëre ñu si kaw moo tax ñu yokk maas waa demoon Gàmbi nag. waaw di nuyu waa Gambie bu baax waaw ku si mel ni Aimé waaw ak Iboy maa ngi nuyu waa gale bi yëpp waaw ku si mel ni Liis ñoo fa nekkoon doon ins déranger bàyyi ma kenn di nuyu waa Gambie bi yëpp liggéey bi ak Gambie ku ne xam ne ne Gambie mën nañu defar mbër mais mais gis nañu masse bi masse bi masse bi nga yokk par rapport ak sa yeneen i combat waaw mooy lu ma la wax rek làmb man làmb dama see dugg pour nekk champion waa chaque jour man aw beneen métier bu dul làmb damay xëy di entraînement suba ngoon waaw su ma indiwul maas ñu laaj ma ko waa waaw damay entraîné xale bu ndaw laa te làmb jii nii du làmb bu may caaxaanee sax waaw moo tax ma entraîné am doole te di ñaan yàlla yàlla may ma ndam si kawam incha allah. mais fils de Lirou ngay bëreel muy xale boo xamante ni bu jugee ay mbokkam jóg di xale boo xam ne bu ñu nee xeex bu ñu nee xeex ne bëre mu ngi si fils de Lirou waxal ci combat bi wax ci fils de Lirou. waaw sant yëpp baax na mais waxal ci combat bi. waaw fils de mbër comme yeneen mbër yi rek champion la ndaanaan la. mais day dajak booy bu ës bi booy bu ko gën a dof bi lay dajal. nga ne booy bu ko gën a dof bi lay dajal. fii sa liir booy bu la gën a dof ngay dajal. kaali bi doo si fooñi ñaga mbooro nga si rek la lekk bu ñu la jàppee da ngay benn jooy la lamb ji jeex ah di ñaan yàlla ndam bu sedd guy nag incha allah mm. la ñuy toog boo ko jàppee rek lamb ji jeex. moo ko jàppee lamb ji jeex day teg beneen teg. jos adversaire nga am de. waaw la ndaanaan la mais daa daje ku ko gën a ës. ku ko gën a dof borom mafia teppi geeg mafia jembere bi. champion baa ngi nii waaw mais bu arbitre sifflé bu arbitre sifflé lafay am kan moo koy def. <laughs> waaw arbitre bu sifflé dañ koy séddoo rek waaw dañ kaa fay fay ma ko waaw mais lu mu indi dina ko fek bu dee dina ko fekk bu dee dina ko fekk. lu mu indi laa la wax si làmb ji dina ko fekk lépp bàyyiwuma dara. question balaa ñoo waaw ñoo confirmé Zoss damay confirmer rek. ñu gis mu def lu am lu am solo tey jii Zoss est-ce que wax jooju xel ak Zoss lan la andi lu mu jëlee Gambie. ah ñun xam nañ ñu liggéey Gambie bu baax mais amaana ñu demul woon Ah, ak ñu toog fii ñoo xamul lu ñu doon liggéey mais ñun ñun ñu demoon pour uti doole xam nañ lu ñu liggéey bu baax te incha allahu rabbi le bu buñ simeekoo di nga xam ne ñii simeeku nañ buñ bëree ba pare dinga xam ne ñii liggéey nañ. waaw làmba ñu boole ñu fay ñu xaalis ñu bëre ak moom. Hmm. ma gis ne combat bi da nga da nga de Lirou de. non xeebu moo ko nga ko non au contraire moom moo ma xeeb moom moo ma xeeb mais di nga xeeb xal mu lakk sa daay mais le 19 moom. naa ko duma naa ko daan bu sooba yàlla. nga ne. naa ko duma dinaa ko daan bu sooba suñu boro bu dee xeex xeex. bu dee xeex bu xeexee mu dóor ko mu daanu bu bëree mu daan ko jël bu rëy. si sos fii ngay waxal de. Zoss do ngay waxal de booy bu ëstu. may la fils de Lirou ngay waxal de kooku champion la de. booy bu ëstu ngay waxal caméra wax lu la neex mais Zoss de. fils de Lirou maa mun maa ëpp doole. waaw di ñaan yàlla ndam si kawam nag yàllaa yor ndam yàlla na ma ko yàlla jox incha allahu rabbi le 19. looy wax promoteur muy Fallou Ndiaye. waaw Fallou Ndiaye di ko santaat bu baax. waaw di ko wax nag waaw. waaw di ko ñaanal réussir total le 19 incha allahu rabbi waaw di ka ñaanal bu baax a baax champion la sama père sama lépp la. billaay bu ma amul combat sax dama woo di ma vocal naan ma jëlal combat wala lii wala lële. billaay di ko ñaanal. waaw gudd fan ak wér yaram. waaw ah, di ko ñaanal réussite totale. waaw ah, di ko ñaanal bu baax a baax waaw. ñu may hommage bëri nañ torop waaw ah, ku si mel ni Issa Niass sama waay la woon. barke Serigne Touba Mbacke sama dernier combat mbapat lañ ko xaañ xeer bopp bi infecté mu wàcc liggéey di ko ñaanal yàlla na ko yàlla yërëm te xaaree ko àjjana barke Serigne Touba Mbacke laay faatin yàlla na ko yàlla yërëm te xaaree ko àjjana ñoo leen ànd fii Abbas di ko waaw Thiam Babel ñëpp xam nañ ko waaw di ko ñaanal yàlla na ko yàlla yërëm xaaree ko àjjana Paate tey la anniversaire am tey la def trois ans waaw di ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla yërëm te xaaree ko àjjana ak mboolem jullit ak ñu fa waaw di ngeen di leen ñaanal yàlla na leen yàlla yërëm te xaaraleen leen àjjana di ñaanal mboolem jullit a looloo taxoon nag ma def hommage bi quoi mais dara. ku wax jàmm gën ne mobilisation ku wax jàmm gën xam ne ful bi ñuy déranger dafa bari mais naka ngay waajalee bis boobu. waaw bis ñoo ngi koy waaj gone yi ñoo ngi koy waaj mbër bi moo ngi koy waaj gone yi nuñ koy waajee sax mbër bi waajee ko noonu. waaw wax nañ Siteu bu Ngor ak nañ ñëw 10 heures ci stade ah sinon gone yi tëj dinañ tëj stade bi de. Cité bu Ngor Diop de. waaw nañ ñëw 10 heures fekk ci stade bi duñ dugg. duñ dugg de. Ah. lu ñuy rey làmb si làmb ji yëpp. ñoom moom moomuñu làmb ji de. dof bi ñëwee rek ñu xam ni ñëw. ma dégg ñu ne yaay moom yow yaay rabu soow. soow bi maa ko moom soow bi sama dëkk maam lay jugee. soow bi ñu koy xëccoo bari na de kon. soow bi paam lay jugee paam. ñu gis nga dugal jaan. jaan bi waaw. waaw di bëggewaat dof bu baax borom yeew bi dof borom géejawaay waa ak barxaam borom waaw borom mbaaw maa ngay bëgge bu baax burukaaf borom kër Masaar maa ngay bëgge bu baax borom kër mbay yeew bi mu ñëw wala jibi borom géejawaay maa ngay woowaat si combat bi bu baax a baax a baax Dame Dieng Dame borom pos caaray maa ngi lay woowaat si làmb ji Moussa Ba borom sam-sam ñoo ngi lay woowaat si combat bi bu baax waaw ah, di woo Maxa Jee borom carrière Tiwaawan maa ngi koy woo bu baax di waat sama yaay Jowa Nambe ak Tullaay maa ngi leen nuyu bu baax sama yaay mère Biige di ah, nuyu waa gàlle bi yëpp jaxeer Jowa waaw Jowa suñu yaay la <laughs> añi moo ko géré waaw ah, di ko bëggee bu baax di nuy waa gàlle bi sama kër gi ma nekk fii ñu leen nuy bu baax a baax a baax mère Biige maa ngi koy nuyu bu baax waaw këram laa nekk bañalu ma dërëm doomam lay àndal barki Serigne Touba Mbacke waaw bu waat bu baax ma fiyaa fora bi abo grand lay pata grand mambay maay woo ñëpp Assane Dip àlla Fanding ñëpp Zé Baye Fall Billy Boy Meuse di ko ñaanal ndam le 26 waaw di ñaanal mbëru jàmm gën am combat yëpp maa leen di ñaanal bu baax Meuse sama zimo maa ngay ñaanal ndam bu sedd guy ak Zé di ñaanal Billy Boy yàlla na ko yàlla may combat may ko ndam bu sedd guy. Tapha bu ndaw maa ngi koy bëggee ak Seex bu ndaw. saf sama jàmbaar yi nekk biir waaw si biir maa leen bëggee ñoom ñëpp ku si nekk bas kaw waaw maa ngi bëggee waat ñëpp kaldu bàyyi ma kenn njuuma laay saar seeni ñaa maa ngi bëggee ñëpp képp ku may àndal rek maa ngi lay bëggee suma ma liimu mbay maa ngi koy ñaanal ndam bu sedd guy waaw Mbaye sama garant la sama lépp la di nuyu suñ kës Jibi Ndiaye kës Zodo Modou Bousso maa ngi koy nuyu di nuyu sama mag Seex di nuyu waa marché bi yëpp di la nuyu yow Fall di nuyu Karba maa leen di nuyu bu baax jàpp ngeen si bu baax a baax di nuyu waa site yëpp di leen ñaanal seen télé nekk télé bu gën a mag barki Serigne Bamba Ziz maa ngi bëggee jàmbaar yëpp waaw ah, ku ma limul sa tur rek waa damaa jum di nuyu waat waa koñ bi di leen jégalu waat bu baax a baax a baax waaw di leen wax ni xale bu ndaw mooy génn rek waaw di leen waat bu baax a baax a baax pa mère xale bàyyi ma kenn di bëggewaat taalibe yi ñu ma dëkkal maa ngi leen di bëggewaat bu baax di nuyu seen sëriñ daara laay maa ngi nuyu ñëpp bàyyi ma kenn di nuyuwaat sama yaay bu baax a baax baax. kàddu gu mujj gi ngay wax fils de Lirou lan la. waaw fils de Lirou na waaj moo ko ay mboq ma kaali bi du si fooñi njaga mbooro la si waaw. jërëjëf mbokk yi internet yi ñoo leen di gërëm bu baax a baax. di gërëm Kalidou bu baax a baax borom fora di ko ñaanal suñu borom defal na jàmm alamar jërëjëf borom post Thiaroye doomu yaay Rës mbokk yi di leen jox dig daje beneen yoon